alakulli xaal gént marché bari nay tegtal nag waaye marché yi ni ñu wutee noonu lay génte yi di wutee ndax ah, ku ne xam ne marché yu ni jaaye ay takkaay am na ku xam ne am na marché yoo xam ne jën rek lañ fay jaay waaye ku ne xam na ni am na marché yoo xam ne lujum ak lu ci aju lañ fay jaay am na marché yoo xam ne lépp lu aju ci wàllum dàll wala marché yoo xam ne lépp lu aju ci wàllum yére ak xeet yu mel noonu kon moo tax eh, am na marché yoo xam ni ay or lan fay jaar am na marché yoo xam ne ndawal moo tax loolu tamit day mat di bàyyi xel bu baax a baax a baax eh, gént nag marché am na ay tegtal yu am solo yu mat di bàyyi xel marché yépp nag ñaari marché ñoo ci ëpp ay tolof tolof muy marse bu ñuy jaaye or wala marse bu ñuy reyee ay nag aki i xar deret ji bari fa lool yooyu marse moom lu ci ëpp ay fitne lay tegtale ki nga xam nag daa dem ci marse bu or loolu naqar la ki nga xam tamit daa gént dem ci marse boo xam ne dañ fay rey ay xaraki ay nag mu bari deret lool loolu fitna lay tegtale joo xam ne dana am ci marse ba alaakulli xaal ba tey tamit ki nga xam ne daa gént dem ci marché fekk marché bi yëpp tëj dara amatu fa palaas yëpp mel ni lu gëjati ji loolu moom it day tegtale ak bekkoor loolu moom it day tegtale ak ñag ñàkk alaakulli xaal mën ngeen jël numéro yi incha allahu rabbi ñi nga xam ne yàlla daa dogal ñu am ay gént bu leen neexee mën nañu envoyé vocal incha allah du aajow ñuy bind seen message dañ koy wax vocal vocal bu leer suñ ko dégloo nañ leen tontu numéro yi nag mooy 78 443 75 27 boobu numéro incha allah ko yàlla dogal nga am gént ci ñu koy envoyé waaye ñi nga xam danoo am jafe nag ci wàllum tawat moo xam ñi am jafe-jafe ci wàllum hémorroïde wala ndoxum siti wala ñi nga xam yàlla day nattoo ñu am mbokk moo xam ne daa dem te kenn xamatut ci lu nekk moo xam mu ngi dund wala daa faatu ci yëpp incha allah ñoom bu leen neexee mën a woote waaye ñi nga xam nag danoo am bëgg ku leen seetal wala ñu bëgg ku leen listixaaral am mbir mu ñu dugg bëgg xam ba xam baax naam baaxut wala ñi nga xam ne yàlla daa dogal dañuy wut kayit pour génn réew mi wala ñu am lu ñu lijjant ci barab bëgg mu jàppandi lool sax incha allah rabbi bu leen neexee ñu mën nañoo woote waaye ñi nga xam ne yàlla dogal na ñoom gént mooy seen itte ajawut ñu woote kon ba tey tamit ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ci wàllum hémorroïde wala ndoxu siti wala góor goo xam ne bëgg na kàttan incha allah rabbi wa ilaa jigéen ju taxaw ci wàllum sëy sëy lu amut doom ñu ñëpp leen neexee mën nañu woote wax seen soxla waaye ñi nga xam daal ajowut ñuy woote dañ ko waxaat mooy képp koo xam ne gént rek mooy si yitte bul woote envoyé vocal incha allah si lañ koy tontu ñi nga xam nag dañuy faral di laaj fu nu feeree ñu ci ëpp ñu ngi féete woon Dakar lañ féete géej waaye pharmacie bi yaay incha allah rabbi foofu mooy barab yi nga xam ne fa lay nit ñi di ñëw incha allah waaye ñi faral di ñëw tamit nañuy woote balaa ñëw ndax day fekk yenn saa ñuy jàpp incha allah dañuy ragal ni ku ñëw dooñ fi mën a jot ci ñun kon ku ñëw te woote woo duñ la mën a recevoir ndax dañuy jàpp kon kii ñëw na nga woote bis incha allah ban jox la bis ne la ñëwal bi sàngam nga dog di ñëw kon incha allah rabbi kon ñii bëgg di egsi foofu mooy bar waaye ku mënti ki ñëw daal ni ngay woote ban jox la ndigal ne la ñëwal bi sàngam nga doog a ñëw ala kulli xaal kon mën ngeen a jël numéro yi 78 443 75 27 ñi nga xam tamit dañoo nekk ci feneen furub Ndakaar bëgg ay ay yitte tamit ñooñu bu leen neexee mën nañu woote ndax am nañ ndaw yoo xam ne incha allah fu ne ñu yaay nekk rek lu mu yittewoo mën nañoo fexe ba mu jot ci te doom benn gàllankoor incha allah rabbi kon ñi nekk Ndakaar ak wala fu mënti kaa doon rek lu ngeen yittewoo ci wàllum garab mu ngeen wootee incha allah wala lu ci wàllum ñaan eh, mën ngeen a woote incha allah rabbi luñ ci mën ñi dimbal leen ci kon numéro yi mu ngi noonu 78 443 75 27 gënt mars nag tegtal yi am solo mu ngi ci ki nga xam daa gént na di dem ci marché boo xam dañ fay jaay lujum loolu mën naa teg te aaja ju faju am na ñoo xam tamit loolu fitna la ci ñoom ba tey tamit dem ci marché boo xam dañ fay jaay ay jën nga jënd bay dem mu këpp lool mën naa tekk yaakaar ju tas wala gàllankoor yoo xam ne nit ki doon na ko am ci benn mbir moo xam da ko doon wut wala mu koy sàkku gént dem ci marché boo xam dañ fay jaay ndawal nga fekk ñu saam ndawal loolu sarax bun la tegtal nga war koo def la incha allah rabbi gént dem ci marché bu nuy jaay ay yére loolu it moom it day tekki ab ubbeeku wala day dindi ak jaaxle goo xam nit ki doon na gàllankoor ak moom doon na jànkonte ak moom ki nga xam nag daa gént dem marché bu nuy jaayee or mu jënd ndax or moom li ci ëpp ay gàllankoor la moom ndawal ñoo yem xam naa nañ dëkk ci gént or sa incha allahu rabbi yi aju ci oor yépp kon ki gént dem ci marché boo xam dañ fay jaay or mu jënd or loolu moom it naqar la wala gàllankoor wala ay tolof-tolof yoo xam ne dana jànkonte ak moom ki nga xam nag daa gént di dem marché dem ba àgg ci marché bi amul lum jëndee dara loolu moom it gàllankoor la ak yàqu yàqule tamit incha allahu rabbi ba tey tamit ki nga xam ne daa gént dem ci marché marché bi yëpp tëj mel marché bu tëj kenn nekkatu fa loolu moom it day tekki bekkoor am na ci ñoo xam day tekki ay gàllankoor ci ñoom waaye am na ci ñoo xam day tekki marchandise boo xam ne bu tijjiwaa marché yi tijjiwaatee day yokk incha allahu rabbi ba tey tamit marché boo xam ne dangay gént mi takk ba bëccëgee bu guddee mu fay loolu moom it marché bu bari ay bàkkaar la marché bu bari fu ni mooy yàlla la ki nga xam tamit daa gént mel ni ku nekk ci marché di nodd loolu ak ubbeeku la wërsëg gu dolliku la xéewal gu yokk la ci moom incha allah rabbi ba tey tamit ki nga xam ne daa gént dem ba marché la muy jënd amul marché loolu moom it yaakaar ju tas lay tekki ak jaaxle joo xam nit ki dana jànkonteeg moom wala ay tolof-tolof yoo xam ne nit ki dana ko gaar gént eh, dem ci marché bu nuy jaayee xaalis koo xam ne day wut ay takkaay mu dem ci marché bu ñuy jaayee takkaay yoo xam ne xaalis la loolu moom it xéewal la juy yokk ci moom ak ubbi ku lay tegtale ci moom waaye tolof-tolof yi dañ lay tegtale ci moom ba tey tamit gént marché dem marché boo xam ne inshaallahu rabbi luñ fay jaay ndawal la bu dee dangaa dem fekk ñu sa am ndawal yi tekk noonu loolu ay sarax yun la tegtal la inshaallahu rabbi ba tey tamit gént marché am na ay tegtal yu am solo waaye tegtal yu mata bàyyi xel gént nekk ci marché loolu am na ci ñoo xam ne kaaraange ci ñoom am na ci ñoo xam ne xéewal gi yokk la ba tey tamit gént dem marché di jënd ay bagaas loolu moom ak ubbeeku la waaye ak yokkute la ba tey kon gént nekk ci marché loolu tamit am na tegtal yi am solo ki nga xam daa gént dem ci marché boo xam ne day tàkk loolu tamit marché bu am fitna la waaye marché bu bari ay tolof tolof waaye marché bu bari ay njàqare la incha